saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa jàngat bu yaatu ba sunu lamb def jagleel ko Balla Gaye 2 ana lan moo dese Balla Gaye ci lamb ana lan moo ko dese ci carrière gannaaw jëf ju ji mu def ci lamb def ko Modou def ko Yékini def ko Tyson moom Balla Gaye 2 ana lan moo ko deseeti ci lamb la mu xëy titre mooy Modou Lo si côté Balla Gaye 2 da koo jàpp daan ko ñaari yoon seen premier ndaje ma Modou moo nekkoon favori ci wàllu xeex waaye bëre ba xeexul bëreewul le 21 mars 2010 ci ci lamb moom Modou Lo normal ba ñu dellu siwaatee ci seen deuxième confrontation le 13 janvier 2019 Balla Gaye 2 wanaat ko boppam moom xarañ loo ñaari défaite ya mu am Balla Gaye 2 moo ko ko teg carrièreu làmbam 3 défaite la ci am benn bi Bombardier ñaar ya Balla Gaye 2 digganteem ak Yaxya Joob Yékini la journal ba xamle moo Yékini détrôné moom Balla Gaye 2 dafa aay ci ñi mësta dégg muñal ñi mësta daanu gannaaw ba mu noppee ci moo ko jële fa mu Joob Yékini la ko Balla Gaye daan ci Demba Diop bu dee Tyson la journal ba xamle mooy Tyson humilié par Balla Gaye 2 ba muy bëreeg Tyson Tyson idolam la woon ca préparation combat ba ba ci biir combat bi yëpp ca préparation combat ba ba ci biir combat bi yëpp Tyson gisul dara mbooleem la ko Balla waxoon ca signature bi mu ñëwee da koo confirmé rax ca dolli moom Balla mu nekk premier waawu géejawaay à 26 ans bi muy am ñaar fukki ak juróom benn yaram dina am lu ci des ka xamle li ni mel nag mooy Lamine Samba moom la mu xamle mooy Balla Gaye am na ñaari mbir yu mu war a bi ci njëkk mooy Bombardier mi nangu roi des bi ci moom ñaareel bi mooy Eumeu Sène mi ko daan ñaari yoon loolee daal war naa bokk ci li muy rectifier bara moo bàyyi lamb ka war a gaaw defaruwaat defaraat combat bi mu taxawal mooy Pape Thialis gannaaw ba ñu déggee ne am na ay lobby yu nekk ci suuf ngir yàq bile combat a gaawee dana jox ñaari mbëri seen avance ba mu a gaawee bile combat diggante Boy Niang ca dooli ne bu ñu jógee foofu dañuy finaliser combat Sa Thiès ak fi génnewoon di ñaxtu ne na promoteur yi ñëw ku ci bëgg a tëgg combat Pape Thialis ne dana finaliser combat combat double Tyson ak xoyantaan bi nu taxawal bu yàggul jamaykee xëy na mer ba fut moom jiital jam production la la mu xamle mooy double Tyson dama trahir combat mag xoyantaan maa ko bëggoon maa ko bëggoon a taxawal bi affaire yi mettee xaw a soof laa ko fa bàyyi dem république bu Kaolack du ma ci boole samay wax Double Tyson dama koy porter plainte ba mu ne toq ci noppam moom Double Tyson la mu xam le mooy jamaykee am na plein droit yóbbu ma ci justice la mu la ko bëggoon a taxawale jox na ma kayit waaye amul fenn fu ma war a mën a signé te boobee kayit mu ma jox gisuma fi lenn luy wane ne lii siñu CNG la bañ ca tegee ay fan la gis ne xoyantaan juboo na ak jabel turaay boobee laa xam ne plan am yàqu na plan deux semaines tabaski la woon ba tabaski weesu waxu ci dara ci la mujjee jubóog jabel turaay signé suñu combat bu dee dañuy yóbbu ci yoon nag mu ngi noonu yoon a ngi noonu jabel turaay ne en am ba des mooy combat xooyantaan double Tyson man la ko yàlla wërsëgale duma ci ñaxtu du ba ci polémique bi le man la ko yàlla jagleel bu nu jàllee ci écurie baax bu Rufisque seen bilan 2019 2020 di fekk ñu def victoire 3 défaites bi le écurie ngay numéro 2 bu Laga Lion bu Jolof ak Dombu Tëngéej caatu limousine caatu Ficelle seen ñetti defet ya Pape Socé moo daanu Boy Faye numéro 2 ak Pape Sow numéro 2 bu dee coach ba la mu xamle mooy nous sommes très satisfaits bile bilan 2019 2020 satisfaction ci am waaye teewut seen ténor yi di caaka fay limousine Ibou Ndafa numéro 2 Albouri ñoom ñépp la nu doomu Jalaaw ak Arobas am nanu combat waaye bëriwunu ñoom dañoo signé combat ba pare mbas